Yeah man. حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبص منهم العلماء رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام ان الله كان عليكم رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وكذا الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور مدساتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ويعوذ بالله من ذلك أستغفر الله ولمن آمن وعمل عملا صالحا وللصائر المؤمنين أجمعين رب العالمين الحمد لله الأول والآخر وصلاة الله مع سلامه على حبيب الله وحبيبنا مصطفى سيدنا محمد وعاله وصحبه وأهل بيته وأصحابه وأهل بيته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الديان إخوة الإيمان في الله أوصيكم عيدا ونفسي بكلمة تقوى الله العظيم وسمي وطاعة الله وأقول لكم قائلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi ginnaaw bi ñu delloo waate ci borom bi subhanahu wa taala moom yàlla moom mi dajalee lépp ki ñun boo ñu mën a taxaw mën a joox inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ay nit ñi lan moo leen jot yaa ayyuha allazina amanu julli leen sallu yal nañu yàlla boole ki ñuy saxoo di julli Seydina Muhammad bokk yi yal nañu yàlla defal dégg ak topp ginnaaw bi ñu amee ragal yàlla yal na yàlla saxal jàmm ci xeetu Seydina Muhammad mun na ko te bokk ko kenn du ko waxaale kenn du jabar moom yàlla du waxtaan ak kenn du yëgle du tàgg ndax la yalid walam yuulad walam yu walam yakun lahu kufuwan ahad da ngay liggéey sa alal yow yow mi yow da ngay liggéey sa ñu ne la papa am nañ cër alal bi looy defa bi nag nga yëg ak say ak say doom mais yàlla amul doom loo toll toll boo amoon 60 ans 70 ans bu sa wéjur jë bu sa wéjur dee dund amatoo amootoo loo moom sa bopp waaye yàlla amul yëpp. ko wante ndax dana amal njëriñ ki gëm yàlla bokk tey ñu bëgg a bàyyanteloo xel ca la nga xamante ni mooy jàmm ak du sabab jàmm bi yàlla joxe mu nekk fii bu demee am na lu xew yàlla dafa ne laa yu xayir maa bi kaw mi xataa yu kayiru maa bi am yàlla nee na jox naa leen jàmm jox naa leen teraanga jox naa leen xéewal jox naa leen yërmande du soppeeku mukk abada li fekk nit ñi soppeekuwul te nag saxlal fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiya nnaas yàlla nee na fitna da doon nelaw ñu ne yàlla ñan ñoo ko yee mu ne doomu aadama ak loxo fasaadu fil barri ما قسمت أيدي الناس 지금 ay noonu la ñuy nekk bu ko firi yombal xiyaama gis ndax dafay dégg liñ naan xale yi di wax ni yàllay yàllay tey ak yàllay démb dañoo wuute yàllay démb da doon xaar ba yombal xiyaama waaye yàlla tey da ngay def tey fay nekk waaye yéen ci xel yàlla dafa ne alqinaa li yawmin zin ay xarit bis boobu baaduhum li baadin aduwwun ñenn ñi dañuy nekk noonu ñenn ñi. ba mu des ñu ragal yàlla kon bopp yi yàlla ne bisa ngi ñëw bu ko firi yomal xiyam kese parce que dafa am dafa mujj ŋàññante dafa mujj waaye li njëkk mooy xol yi bu ñu defaree xol yi coow du am ñaar am am ñaar moo am ci aduna xol ak xel te lépp ki doom ki ci jëmu ak ah, doomu la rek doomu aadama su li li li yeewu ci moom xol la te bu xol jógee mooy nekk président cër mom limi muy servir cër musiba la ci xol moy nan attaquer xol moy nan xexal xol moy nan sagal xol lépp lu bon xol a koy def lo nit motax alquran neena wama ubarri'u nafsi inna an nafsa la amaaratun bi suin illa ma rahima rabbi seydina Muhammad nee na am morso bu yàlla daf ki nit morso googu su baaxee léppi doomu aadama baax waaye morso boobu su bonee léppi doomu aadama bon ñu ne ko mooy mu ne alaa wa hiya qalb ah bokk kon nag ku ne fexee dugg ci biir néegam xalaat lan lay xalaat ba xam lu bon la mu dindi ko ci xolam amal say bokk jëriñ yàlla nee na ku ëpp njëriñ ci man mooy ku ëpp ci ay mbokkam jëriñ kon kenn mënu jëriñ yàlla ndax xajul ko yomu laa taa ko soo sinatul wala naw waaye yàlla dafa ne dimbale leen yàlla yàlla dimbale leen la yanzuranna allahu man yanzuru yàlla kenn mënu ko dimbale nekkal leen yàlla ki ay jaamam yàlla nekkal leen kon ñu bàyyi ci xel bokk mi yàlla tere na ñeent ñett ñett la terewaat yàlla tere na lépp loo xamante ni lu ñaaw nit bu mu ko wax bu mu ko jëf bu mu ko xalaat yàlla tere na ba tey lépp loo xamante dañ ko sib yàlla tere na bew bew bew nag ak iñaan sorewuñu mais bokkuñu oustaz léegi ñu jaawale ku am lu iñaan mais ku ñàkk du dem iñaan alal ku ñàkk la bew alal ku am la ñu xam ñaar ñëpp benn baaxu ci ku ñàkk nan lay iñaane tey dama doon xëccoo ak professeur benn benn kaamil alquran yàlla def yàlla def ko ci wërsëgu professeur ma ne du fi amee dafay am ci niveau yi maa ko fi jiitu maa ko ëpp diplôme maa ko def nii maa ko supérieur maa ko gën a sonn yàlla bi muy tànn tànn la ki mu tànn boo fi ne wallazi ba'atha fi ummiyina rasulullah yàlla bi ñu yónni Seydina Muhammad mu di ko yónni ci biir ay ay borom xam-xam bi yónni ko ay sabaa yónni ko ci ay ci biir ay ay ay borom ay borom diplôme lan la yàlla nee na maa jël ab innocent bu mënut a liir mënul mënul ko loolu du dara ci yàlla kon bàyyi leen xëccoo yi ci palaas yi bàyyi leen liggéeyante yi ci yi bàyyi leen soxorante yi yi bàyyi leen iñaanante baaxul day yàq jëf yéen tamit nee na. doomu yi say julli say woor say asaka say lu say taranga iñaan mooy soppeeku gëm mel ni matt mel ni safara ni muy lekkee matt say lu baax la ko iñaan lekk bàyyi leen bàyyi leen am na ñoo xamante ni ñu ngi ci bureau yi du ñu tuddante am na ñuy xëy ci jàkka yi ku julli jaar ni jaar ni oo oo duñ tuddante am na ñu nekk ci daayira yi te duñu tuddante am na ñu nekk te yonent bi nee na képp ku ku tomboo ak mbokkam mbokku jullitam ñetti fan ku ci njëkk a dee rek dugg safara am naa ci koo xamante ne na ma ba sama benn sama benn wala réew xuloo na ak moom 15 15 ans duñu tuddante xamuma sax xamuma sax 15 ans dama tuddante ak moom dama koo xeeba xeeba boo xamante ni. ngay baal bokk yi loolu si bàyyi xel ab julit day def lu baax ab julit day wax lu baax ab julit day jëflante ak nit ñi lu baax te la nga def nga baal allazina yunfiquna fi sarrai wa darrai wa xaasibina alxaysa wa aafina ani nnaasi wallahu yuhibbul muslimin lii mooy taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan ñun nag la ñu mun lii yaa koy nangu yaa koy nangu sama mbokk soose yi dañ koy nettali nee nañ dafa am benn sëriñ boo xamante ni moom ak taalibam la sëriñ bi taalibe bi ñàkkoo ñu déggoo ak jabaram bu saa su demee ci sëriñ bi rek mu ne ko lii de yaa koy nangu ni nga ñàkkee fayda ni nga def nit ni nga def ni benn jour nag taalibe bi jotee ak na ak soxnaam di doxantu ay une heure du mu dem fekk wanagu sëriñ bi ci kuuram ci kuuru parce que mag yi da daan nañu am wanag bu yaatu mu dem du mu dem di déglu yépp nu gis sëriñ bi bootu soxna di daan koy ayoo ayoo nen ni kon nag lu la fi waaye di di bañ doon naan la yaa koy nangu moom mu ngi naan teg nañ ko lu ëpp loolu ate mu koy nangu wala kenn ndax tàppale baaxul ab boolu mënu kaay du fees wala fa koy wax sama boolu sama boolu mënu daa fees sa boolu muñ kaay dafay egg ci boolu muñ kaay Seydina Muhammad sa boolu muñ kaay est-ce que egg na ci seen ci boolu muñ buñ kaay ki ñu dugaloon ci ci loo def loo wax loo liggéey defoo dara tus mu ñëw dañu muñ dañu muñ innama yuwaffa as bi xayri xisaab yàlla nee xaw xaw ma li ma yàlla xañ waaye loolu bokkul léeg-léeg ñu ne moom sax da koy wax te du ko jëfee am na loo ni moom bu ñu ko defoon bi ndeet bi ko baal pour lan baal la jëngal la te yow mi ëpp doole muy yërëmal gaay yërëmal gaay moo tax wax naa iñaan ki si des mooy ku beew day am dara mun naa am ci borom xam-xam tey jii imaam jógee fii xam-xam bi jural ko benn ah, xam ni dara ndax wa maa utiitum min shay'in illaa qaliilaa kenn xamul dina am tuuti li mu may ku mel ni Cheikh Dramé rek mu leer bu boobaa kenn dootu ko gis wax mu ne kii dafa bëgg fond wala yàlla benn tuuti alal koo gis ku ne nga jàpp ni yaa ko gën te doomu aadama xalaqa ko min nafsin waahida wa xalaqa minhaa zawjahaa wa bassa minhumaa rijaalan kasiiran wan nisaa wattaqullah nit ñoo bokk nekk may kenn gënul kenn kullukum min aadama wa aadama min turaab ki fi kenn amay ko ragal yàlla inna akramakum doomu adama yi ngeen xeeb doomu adama doomu adama yi ngeen tuutal ay doomu adama yi ngeen dum ñëwanteel ngeen jël doomu adama yi def leen ay catégorie am na ñooy waxal am na ñoo dul waxal am na ñoo xamanteni sax bo leen gisee nga ak sa vitre sa vitre xol baaxul rafetul nit ñëpp ci yàlla même même même la gàñte leen mu ne dégg naa ko baax ñoo bokk leen rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabur rahim ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا خلا للذين آمنوا السخط وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين